ñoom fu baraw. ah doy xam ne waa Tamba bu ñëwee fii ñoom dañuy fii dafa sedd ci ñoom. dafa lan Tamba. sedd waaw ah, Tamba dañ bu ñëwee fii dañ naan kaw dafa mhm. ndakaaru kay moom ñoo ñoom dañuy dog sax duñ mën a naan ndox. Ah, sama gars yi de la ñuy wax ne buñ dogee duñ mën a naan ndox ndax sedd ba fa ne. mais est-ce tamit euh, bu koor jotee <laughs> duñ dem Dakar. tàng na de lañ nga sama lañ ci de. Ah,

yow yaa ngi ñëw nuyoo defoo dara sa ñëw toog lan la geste bi nga def nii mooy lu mu bi deekul. Ah, sa xol du neex lan la lu xew. lan moo naqari soxol xol Mor lan moo ko naqari ma bii sa xol moo ko naqari lan la. du lii de nii nii nii naqariwul sama xol de. sa moo neexul nga wax lan moo naqari soxol xol. war na maa fekk fee ba ne xaw ma kan laa taxawal di wax ak moom kooku xam dafa dugg si rek tàmbali maa dóor yaa ngi dégg danaa jëw bi de man maa jël pantalon ban pantalon xanaa ne wul bonji moo la fekk si buntu kër gi bonji moo si buntu kër gi bonji fee la ma fekk ma toog ma ne bonji bonji kooku moom man maay patron am moom gardien la si kër gi ban pantalon la la ji da ngaa jël pantalon bi à partir de boo nekk nii waaw jaw kay jaw kay jaw ngaa teel a wax. déedéet ma ne. waaw ndax moom pantalon dama teg dama laaj pantalon pantalon ndeket yow yaa sol pantalon. ma ne man gisuma pantalon dégguma pantalon bàyyi sa dof-dof lu kii ma ne yow pantalon bi da nga kaa jël wala jëloo ko pantalon bi yaa ko jël ba mu bu pantalon bii lay wër mën ma fekk fee di ko laaj. da da di ko confirmer daal ko. laaj ko ba doy. ak naaj bu tàng bi kii xam li lépp boo waxee li mu wax xam nga lan la Badak Jaw jooy wax kii dafa seytaane Jaw ay frère la ba Jaw ku seytaane man dañ wax ma ne da ngay jël pantalon yow lan da ngay jël pantalon man ko yow da ngay jël pantalon moom yow da nga kaa jël xanaa su ma demee wax ko su ma demee ne ko pantalon baa ngi ci Moussa Ndiaye moo ko pantalon bi ngi moor man gisuma pantalon yow da nga ne yow dañ laa jiiñ pantalon sa pantalon da moom laa jiiñ pantalon da jël pantalon bi wala waaw kon kay bu la ko laajee doo ko jox. loolu laa ko wax ba ne ko man gisuma pàttali la ndekete jaw yaa jaw yaa jël pàttali sol ko boo koy defee da nga koy da nga koy wax waa waa kër gi xam ko nga xam ko daal de sax xoolee kooku daal di feeñ loolu. daa kii li kii dëbb na kër gi ba kër gi mokk rumbax rumbax ah. laa la wax ni kii. Ah. mook boo boo ji mu ñëw na. Ah. ci kër gi lu mu wax ko boo ji di wax fi nga ma fekk gardien la ko teg xamul lu mu doon ay tuba yeeg ay pantalon. yow dafa daal kii xalaatee di ko rus de booyee de arrêté ko def pantalon feej la ban pantalon feej la tey di nga gàcce bu yow ni ngi dañuy waxee fële nga waxee fee doo dégg doo gis kan man fa ko pantalon ah léegi leer wax dëgg boobu ci gémmi jëm eh dëppoo dina jàpp la sa lii tey di ko teg ko nii lii moo lay wax loo ma ne jox ma sa nopp bi tey di nga ma dégg ci mii wala ci ne bàyyi ma nga naa ma dadaa kii dafa dina jàpp eh ma noppi laa la fii laa la pantalon réeru fi yaa may dégg kii gardien la ci kër gi Moussa Ndiaye moo ko jël da koo yónni woon Fatick mu ñëw fi nga toog mu foog ne gardien da nga naan ko ay pantalon la ah, dee dagg sax man daa ko dagg buy nag daqaar boobu ngay wax dinaa la ko def jot na ma jël yaru Dakar toj sa lu bon ba mu moo ko rumbu. waaw kay kay gis nga yow tey jii ngay dégg li ma la wala ma rey la ñu nga dee. bu ko ci yow nag eh, eh, bu ko kii yéen la yàpp kii xamante ne génn ci noppi yow kuu la eh, du bat de kii la kii la yow la ma ne yaa ngi may dégg eh xool ma laa wax yaa may dégg gis nga sama gémmiñ gi li may wax yaa ngi koy gis yaa may gis bu baax ah, kon dégg nga ma nee nga waaw kon gis nga sama gémmiñ gi da ngay dégg li ma lay wax wala ma la kii ci pantalon réerut ci kër gi yaa ngi dégg Moussa Ndiaye moo ko jël day garde ci kër gi da koo yónni woon mu dafa ñëw léegi pour liggéey liggéeyam kon dégg nga bu baax xool ma maa ngi dem naa déggaat rek nga def fi benn yëfu dof rek yow bu ma ñëwaatee bii baa dama lay rey nga soof ba bagga dee fatte soof ba bagga dee ndekete laaj ba ne xam <laughs> danaa ngi wax boobu ba léegi nga koy dégg te lu ma lax doo ko dégg man nga yab. ne néew di pan ne néew di pan loo fay. sa kër gi lu ñuy fi am lu ne lu ne lu ne. kii kii man man kii moor mi yéem na ma de. ah tamit xamuñ weeru koor nit koo xam du dégg.